président Ousmane Sonko bi nga xam ne tey dafa wane dëgg taxaw temb ne day la ñii nga xam ne lépp lu ñu dal ñoom ñoo ko teg yow Adji Sarr en tant que jigéen xale bu ndaw am sa avenir ci sa kanam lan moo la war a mën a jaral tey ngay hypothéquer avenir u Sénégal Adji man jigéen laa wante yow tax nga tey ma du sa doon jigéen yow Adji bu fekkee ni tey am nga ay mbokk na la leer ni boobu wutal nga ko way bu dul fay yow aji képp ku bokk ci sa askan rus na ndax sa jëfu tey na la leer ni nag di nga bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy lim histoire bu triste bu Sénégal dinañ la ci boole tu es rentré tristement dans l'histoire aji te na la leer bu ndaw hypothéqué sa revenir pour ñoo xam ne ñu ko ndax xaalis ndax lan ndax tey nga jaay sa ngor jigéenu Sénégal yëpp nga gàkkal leen yal nañu yàlla atte ak yow di leen wax rek ni président Ousmane Sonko du ku ñuy fawee président Ousmane Sonko du ku nga xam ne dañ koy bàyyi ñu koy faagaagal si noonu ñun patriotes yi dañoo taxaw temb te bu leen yëgoo ngeen xam ne balaa ngeen a jaar ci kaw président Ousmane Sonko ngeen jaar suñu kaw li may mooy lii jigéen lañu utiliser pour xeex président Ousmane Sonko na leen ay jigéen ñoo koy xeex ñun ñoo koy xeex ñun waa jigéenu Pastef ba ngeen xam ni fii Sénégal rangoo ñu baadoo la dootu fi cimetière bu yow aji nag na la leer ni ëllëg dinañ la takk dugal la si sa bàmmeel te sa ay jëf kese moo la fay fekk yal nañu yàlla àtte ak yow président Ousmane Sonko na la leer ni ñun la gën a feddali suñu kóllëre suñu wóolute te nga xam ni foo nekk dinañ la gunge combat boo nekk dinañ la ko gunge même si vous enfermez président Ousmane Sonko, des milliers et des milliers de Ousmane Sonko sont nés ici au Sénégal et partout en Afrique. Et cette, ce de renouveau, cette révolution qui est née, personne ne peut l'empêcher. Wassalam, dina am lo xam ne maa ngi leen koy wax mu doon sama ay kaddu tagato ndax julit bu baax bu ne boy tagato dafa war nga melni nga tagato ni comme do yeewu suba kaddu yi may yëkkati nag dama koy tek ci li nga xamné mom moy sama xalaatu et je sais que peut-être ça xol dina ci mën a euh, Ce Ousmane Sonko c'est un homme de ma génération Ousmane Sonko ben atla comme ko magee Ousmane Sonko yalla dafa def mu dee ci xolu sénégalais au ñun ñëpp tay képp kuy sénégalais tu es fier d'avoir un Ousmane Sonko dans ta vie et je peux te dire que amul je ne suis jamais plus fier qu'aujourd'hui me voir moi se combattre pour ce Ousmane Sonko ndax wax deug Yalla du xex bu may reccu bu ma ci deewoon sax wallahi azim dina ci sante Yalla. ndax dom yi ma jur sax xam luy Ousmane Sonko te ce n'est pas des Sénégalais de de ci juddu te ma wax len dara je vais vous dire une chose gis ngeen buñu sagané ba Macky Sall loxo Ousmane Sonko nanu xamné dina ko sacrifier parce que son seul cible benn doomu jaam ben nit bu ko sonal moy Ousmane Sonko et Sénégal Ousmane Sonko avait waxoon na ne vous allez souffrir te Macky Sall la xam ne ngi souffrir te xamna ne li Ousmane Sonko waxoon yëpp yéen a ngi koy teg sen bët te xamna ne vous allez révolter Macky Sall la xam lolu. Macky Sall la xam ne sénégalais dinañ ci kawam mais billahi bu ñu xeexul Macky Sall ba mu jëlee fi Ousmane Sonko moom bu dee woon sax du Sénégal dootul njëriñati dara parce que ci loxo beneen doom yaram lay dem mujj xam leen ne Macky Sall tey bu dee woon te mu reyal ñu Ousmane Sonko mi nga xam ne ñun moom la ñu yaakaar Macky Sall Sénégal ci loxo beneen doom yaram lay dem mujj lenn nag moom ma neex nag ci waxtaan bi yëpp Moi, toujours comme Niko wa Pastef di waxe dañuy taal xel yi te taal nañu xelu ay milliers de doomu Adam à travers le monde ay junni junni Ousmane Sonko tay ñom ñoo am ci Afrique tay da ngay dajé nitu benen réew sax mu ne la ndax sénégalais nga nga mu ne votre Ousmane Sonko là je suis très fier de lui Ousmane Sonko est un patrimoine mondial c'est pas un patrimoine sénégalais c'est un patrimoine de l'Afrique c'est un homme qui est capable de changer l'Afrique kooku bu ñu seetaan